président su ci waxul ñun ñu jël ci suñu matuwaay ñi bokkoon fii gis ngeen fii ay responsable la fi nekk kii moom la directeur l'ancien directeur de cabinet Pape Alioune Diallo yónni man ci na cabinet laa bokkoon keneen ki bokkoon ci cabinet nekk conseiller technique numéro un bàyyi na parti bi dem dem ACT mu léegi moom mooy chargé de la communication du parti de Abdoul mbay ndax Thierno Alassane Sall ndax ñàkk a yëg Lamine Fall la tudd moo doon conseiller technique numéro aw wu na Sall ndax ñàkk yëg ñàkk considération kenn mënu koo jot téléphone kenn mënu ta wax ak moom boo ko waxee loo xamante ni mooy dëgg mu mer indi la histoire guerre ak yow loolu nag lañ ñi président su ci waxul ñun ñu wax ci ful mbéjum kanam nag boroom a koy fajal boppam fii fu mu fi teg tànkam ñu teg fa sunu tànk fu mu dem ñu dem fa ni kii baaxul te kii du séddale ba boo duggoon ci dëkk bi dala wax benn wax la wax bi daj na boy na nopp ñëpp kii amul njëriñ billaahi kii moo ñàkk njëriñ cër mooy lan loolu moom mooy cër sëñ bi noo dama ni dabu ko de keroog bind naa ci journal ma wax ni keroog ba ma woowee ni ma kaay nekk chef de cabinet dama lànk mu topp ci di wax ma ne ko chef de cabinet c'est pour les fonctionnaires de la hiérarchie B ñun jàng nu am ay lijaasa xam nga lii dëgg bay dëgg Thierno buggul fii ku dëkk Thiès koo xamante ni am nga niveau mu fexe ba nga am ay responsabilité dama leen di défier won leen ma benn nit bu dëkk Thiès boo xamante ni Thierno Sall moo ko dimbali mu nekk ministre mbaa mu nekk député mbaa mu nekk chargé de mission primature donc yu yomb yooyu mbaa mu nekk chargé de mission présidence mbaa mu nekk ministre conseiller mbaa mu nekk directeur mbaa mu nekk quoi que ce soit loo xamante ni dina ko mën a def de l'ombre il pense que tout le monde lui fera faire de l'ombre il pense que le soleil ne doit briller que chez lui loolu munta ne nag fii wama min daxbati fil ardi ila àlallaah ñun yàlla lañu ñu yaakaara ah. yaakaaruñu keneen nag ku jàpp ni fii yaa ko moom da ngay nax sa bopp boo ko jafee rek mi ngi nax boppam ñun fii lañ dëkk nag ci dëkk bi ba mu fii ñëw fii bañ fii ñëw keroog man ba ma ko indee sama kër dañ ñi ma kii mooy kan kenn xamu ko man maa doon président ASC e ba billaahi kenn xamu ko Grand Thiès Assane Mbaye mi nga xamante ni juróom benn kër a dox seen diggante keroog bi ñu demee président Macky Sall di recevoir dama ko koy présenté mu ànd ak yaayam Mati Ñaax ma koy présenté ni ko kii ci koñ bi la dëkk dane ma kii dëkku fa xawuma ko ma ne ko juróomi kër a dox seen diggante mënu ma kii ko kon kooku kenn xamante ni ñi nga dëkkal juróomi kër waaye nag xeex bi mu jëm ni ñu xeex mu dem fenn lijjanti grand parti bee taxaw installé wu ci buntu këram moo gën a wóor balaa ngay dem di proximité ci kër nit ñi ci buntu ne da ngay nangu seen militant di kaas naan Siré Dia dafay nangu ay militant nekk bu xëyee mi ngi fexe nu mu jëlee militant njagawaat parce que du bëggatul njaga tekki dara mi ni militant bulise mu jëlee militant Madaa Bowaat parce que jàpp na ne Madaa Bowaat tekki dara mi ngi fexe nu mu jëlee dem lijjanti grand parti bee ci buntu këram moo gën na dem ci loolu moo gën muy ñekk fii bu ñuy bëgg a sonal waaye fii moom bu yewoo mu xam ne wundu du fi naane neex amal na ko njëriñ ki nga xamante ni mooy toj boppu ñëpp su ñëpp ne dañuy bàyyi kay kon kon kon kon parti bi dina tas de ñun lii ñuy def kay mooy président hé kaay wax ci kër gi président woowal sa njaboot woo ñu Dakar ñu ñëw déglu bu ñu demee foofu dinañ ko wax li ko war a wax bëri na lu ñu war a wax fii nag te waxuñu ko dañuy xaar ba toog ak moom wax ko li ko war a wax mais kii moom amalul njëriñ Cees amalul njëriñ doomu Cees amalul njëriñ waa Cees boppam la amal njëriñ xam nga balaa ngay mën a amal njëriñ Cees da nga naan non xaaral ma am fi kër di fi fanaan di fi dëkk mais bu fekkee yow nangu fi sax jënd kër xeeb nga ñu ñun ba nangu fee jënd kër xeeb nga ñu ba nangu woo ñoo def nawle xeeb nga ñu ba nangu kenn tolloog yow xeeb nga ñu ba nangu kenn wax la dara kon yow munoo ñoo jiite kii mënuñoo jiite bu comme technocrate la nag na dem ministère am ba mu faloo dafa ne bàyyi na politique day ministère loolu naa toog ci loolu mais fii moom <laughs> jeex comme ni ma ko waxee wallaahi jiite nañu cinq ans de calvaire boo xamante ni bis bu nekk boo duggee ci biir dëgg nga koy wax ñii may àndal xam nañu heure bu nit ñi demee ma wax ak moom gis nga pôle yii muy créer keroog ba mu ñëwee ni day créer pôle damaa toog ba nit ñi dem ma waaxu dem ba këram ni ko pôle yii du wax yi dara du dem xam nga lu ma wax pôle yi dama koy créer parce que buñ ko créer wul benn nit bu jógee bu amee doole bu génnee day dem day yóbbaale yeneen nit donc dañuy defar pôle yi pour ku nekk toog sa koñ kenn du ci am doole kenn du yóbbaale dara kooku dafa dafa mën a dimbali nit ñi moo tax kenn gis ci activité pôle je défie n'importe quel journaliste fu ñu mës a dem genn amul image bu ñu may gis ci pôle du ma dox ci loolu nit ñi dangay ngay mën a jox nit ñi cër bëgg nit ñi egg fi nga egg mais bu fekkee yow da ngaa bëgg ni yow rek ay egg kenn du egg fi nga egg loolu du mën sotti wallahi lazim ñàkk yëg waa ñàkk toppatoo waa ñàkk toppatoo militant yi may àndal ñàppa topp nit ñi may àndal amul benn nit boo xamante ni Thierno Alassane Sall mës na ko may benn daggitub contrat ci ñi may àndal loolu nga jàpp ne ngay ànd ak nit juróomi at loolu mën na nekk cinq ans ngay ànd ak nit benn contrat bu mu mës stage non loolu dafa bëri stage bu mu wutal benn nit bu liggéey ñun dañuy def social ci loolu la ñuy liggéey ku ko mënul ñu abal ñu ñu seet ku ñu mën a defal ku mën a dimbali suñu nit ñi ku mën a jàppale nit ñi ku mën a tette nit ñi ku mën a yóbbu nit ñi fu ñu jëm loolu la ñuy wër ñun. bu ñu woowee bu ñu woowee ñu déglu ko ñun bañu ñoo déglu kenn. waaye li ñu mënatul mooy kii nga xamante ne nee na technocrate la du politicien mu ñëw di occuper champ politique bi di yàq li APR di liggéey naan moom day créer ay Thiernoïs loolu la ñu mënatul a d'accord fii on n'acceptera plus que quelqu'un sous le simple prétexte que da nga bokk directoire que tu viennes ici dicter la loi à tout le monde que tu viennes écraser tout le monde ça on l'acceptera plus mais man mën naa laa génneel message yi nga xamante ni moom la ñuy wax est-ce que mës ngaa dégg benn nitu Thierno di la wax ci dugg ci wax sa xalaat bu Didier mbay daal di défendre président wala APR soo ko déggee je te défie ah défi lay laajte gis nga tey jii nii ma waxee nii déglul wax sa xalaat bu semaine prochaine ñu déglu ko dinañ ne non gaan bi jaam la waa ji tekkiwul dara goree dina nangam nangam te ñun waxi politique la ñuy wax de mais yooyu lañ lay wax parce que da ngaa wax ci Thierno kenn du la waxal mukk ni la non waa ji wax na lii ci président def na lii ci président jamais. dañ ko doon tëj man ak Lamine Ngom di ko wax il faut que boo waxee nga tudd président mais ñun ñëpp bonuñu ñun ñi bàyyi yëpp yëpp bonnu Njaga bon ma bon Mariam bon Astou Gueye Ndiaye bon Pape Aline jàllo bon Lamine Fall seetee 1 bon euh, euh, Awa Doucouré bon ñun ñëpp ñu bon dëkk bi yëpp bon ah loolu nag xanaa moom moom ñun ñëpp bonnu kon boog moom moo war a seetaat boppam su fekkee ni dafa jàpp ni Siré Dia day nangu ay nitam man ànduma ak Siré Dia nag je le dis ànduma nekk kenn nekkuma si ginnaaw kenn président laay waxal su fekkee dafa gis ni nit ñi dañuy nangu nitam kon war naa xool doxalinam xoolaat boppam xool ni li muy def doxul. loolu loolu moom suñu eggee ba ci kilifa gi. bu ñu woowee dinañ ko wax ni kii mus président defal ñu kii fii loo fi wax rek. ñu ne non bu ma waxoon tey jii bu ma ne woon sax Babacar Ndao ñu ne noo Babacar Ndao ma télé de bu guddee léegi nga dégg ni Babacar Ndaw ma ca liggéey mu ngoog waaw waaw. aha Thierno Alassane Thierno waaw.

Thierno ba mu wàccee lañ ko gën a liggéeyal que ba mu nekkee sax au pouvoir loolu yéen ñii journaliste seede ngeen ko mën ngeen ko seede liggéeyal nañ ko jàppale nañ ko fexe nañu ba mu avancé xeexal nañ ko fexe nañu ba mu nekk ministre yëf yi nag du woon sax waa APR dong de képp kuy cees waa sat nga ci benn góor daf maa wax barka démb ni ma Thierno ñu leen yéen waa APR waaye ñun waa Cees yëpp la toj tooñ ndax dañoo amoon ay ambition ci moom mu jël énergie am yëpp jàpp ko ci xeex loolu la ma wax lii may wax nii matagul une semaine maa ngi njagawaat bi mi ngi ànd wax ju amul seede baaxul benn paa <laughs> euh, euh, waaw xam nga kon nit ñi dañ koo jàppale parce que dañoo gisoon ni ku mën a war nañ koo mën a jàppale ci dëkk bi la dëkk man mii doxe naa xaaja guddi trois heures du matin jaxaw ba Grand Thiès donc jàppal nañ ko ba mu war a egg fi mu war a egg waaye bu ñu la jàppalee ba nga egg fi nga war a egg nga jàpp ni yow da ngaa yéeg parce que yëf yi sa xel la wala sa liggéeyu ndey la wala sa pexe la wala sa jàng la parce que suñ ko waxee day weex man jàng naa diplôme yi am président amu ko wala nga jàpp ni sab jàng loolu wax wala nga jàpp ni sab njàng la moo tax nga nekk loolu da ngay nax sa bopp nit ñee la jàppale ba nga falu bis mu nekk ñu waxoon nag boo waxee ba sës rek nga taxaw. lan mooy moo ëpp diplôme. Ah, diplôme moo yore réew. dama ne ndax diplôme ay yore réew. waaw ah, na dem wax ko ko na dem wax ko Macky moo gën muy dugg ci biir néegi di ko wax na dem wax ko waaw man liggéeyuma fenn maa ngi yore sama cabinet di def sama consultance ya ma doon def sant di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di nuyu journaliste aussi yi fi teew pour jël suñu xalaat li nga xam ne moo dajale fii tey maa ngi tudd Ndiaga Wade nekk coordonnateur APR bu Thiès noor nekk en même temps conseil municipal ci mairie commune noor tey nag li ñu fi dajale tey di wàllu APR fii Thiès boo déggee tur wi dafa am lu muy signifier parce que gis ni APR Thiès dafa doxul te dafa nekk si sukuraat te bu président jëlul ay responsabilité am parti bi day dee Thiès parti nag bu fekkee day dox dafa am si lu muy doxee APR kenn ku nekk xam na ni kenn instructuré wu ko mais buñ ko instructuré wul tamit aussi mar nañ ko mën a organiser ba parti bi mën a dox xam ñu xam fan la ñu jëm mais organisation boobu moom la ñu gis ni moo manqué si parti bi fii à looloo tax ñu taxaw tey di wax ak président de la république di wax président APR président Macky Sall di ko alerter ci situation parti bi fii à Thiès parce que parti buy dox boo gis parti bi peut-être kenn jiitewu ko Thiès waaye war nañu mën a fexe ba organiser wu ba mën a dox parti bi dox pendant cinq ans kenn mësul gis fu APR taxawee di réunion loolu kenn mësu koo gis parti boo xam day dox saa yu ñu lan moo leen di dajale mooy programme am na wala ñu ngi waaj a dem élection parti bi ñëpp dajaloo ñuy xeex ak a xuloo loolu yaakaar naa du parti li ñu bëgg nag président jël ay responsabilités am ci certains responsable yu nekk fii à Thiès parce que Thiès aussi ku ne xam na ne dëkk bi bari na ay fitna yu fi am yuy jóge ci parti bi chaque jour APR ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu ngi xeex léegi kan mooy causé loolu APR tey benn nit leen fi gis bu teyee mu histoire ak kii suba mu histoire ak keneen ginnaaw suba mu histoire ak keneen encore loolu dañu gëm ni loolu du mooy doxal parti ku ñu wax président mu jël ay responsabilités am ci nit kooku parce que tamit politique bu ñuy dox ñun ñëpp dañu war a def promouvoir APR fexe ba APR dem mais bu fekkee da nga nekk ci parti au lieu que ngay taxawal di doxal parti bi muy dem ngay créer sa ay nitu bopp kooku yaakaar naa loolu jëmalewul parti bi kanam te ñun bu ñu fi dox ñun ñëpp APR bàyyi fi APR jox leen ay responsabilités saa yu nu jógee si li ñu war a dox mooy dox loo xamante ni parti bi da koy jëmale kanam mooy au lieu nga créer ay apéris di créer ay ceris loolu la ñu bëgg nag mu dakk parce que gis nañ ni ñuy préparer loo xamante ni yaakaar naa ne du loo xamante ni day jëmale parti bi kanam gis nañ ni bu jëmee dafa mel ni Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade bi ñu fi nekkee mel ni genre coup boo xamante ni moom looy am te loolu bu si président jugul yaakaar naa ni luy suuxal parti bi la mu nekk fi di préparer au lieu que mu préparer pour part bi jëm mais boppam lay préparer Thierno Alassane Sall di préparer ay jeunes et cetera di leen préparer si côté bu nekk pour être victime ëllëg bu xam ne bu problème amee ñu jàpp ni moom dafa wax xale yooyu dañ ko war a jàppale pour leneen ak leneen loolu mooy parce que gis nañ si parti bi ay jëfin yoo xamante nii jëmalewul parti bi kanam parce que du taxaw mukk défendre parti bi taxaw foo xamante ni aussi tamit le ay grève yoo xamante ni am na Sénégal ay transporteur def ko ak yeneen ak yeneen nga ciy participer di fexe di galgal sa ay mono ministre et cetera loolu yaakaar naa ni du du luy jëmale pan président bi muy gagné réew mi dafa woo ministre yëpp ñu ñëw ak ñu ñi mu avant muy teg gouvernement woo responsable cadre yëpp ñëw mu leen li ma bëggul mooy nañ fexe ba nañ bu bu arrogance bu mu ñu dal parce que loolu lan gis ni moom moo fi jële woon PDS nit ñoo xamante ni dañoo rëy du ñu wuyu nit ñi téléphone du ñu def kenn président bi mu defee constat ba boo wax ko ay responsable yu mu nekk mu demee nommé gouvernement mais fii la ñu gis Sénégal benn ministre boo xamante ni bi président faloo ak léegi muy Thierno Alassane Sall am na plus de dix numéro téléphone kenn mënu ko jot benn responsable bu nekk Thiès bu ni mën naa ko jot amul boo ko laajee boo amee numéro am tey prochain mois da ngay laajtewaat numéro am ban numéro la yoraat tey mi ngi si réseau yi nekk Sénégal yëpp bu si nekk mi ngi yoroon na numéro am tey mu coupé demaat feneen kon kooku day wane ni moom accessible li beneen bi si des muy politique dafa ànd ak social ñu gis ni social bi war si diggante militant yi ak yooyu ak responsable yi fi nekk loolu amul président nag bu fekkee dafa teg nit mu war a dox digganteem ak nit ñi social boobu mu koy def ñu gis ni social boobu dafa manqué loolu dañoo war a taxaw dénoncé ni président social boobu amul loolu nag la ñu taxaw ni dinañ wax ak président mu jël ay responsabilités fii si Thiès parce que ñun tamit à partir de maintenant man li ma ko considéré dama ko jàppee comme opposant fii si Thiès loolu laa ko jàppee comme ni may ni ñuy traité Idrissa Seck noonu lañ koy traité moom Thierno Alassane Sall parce que ñun APR lañ fi nekkal pour APR dund ak APR dox képp ku nu gis koo xamante ni la li ngay dox ni war na ni yaa ngi si parti bi doxalul APR dañ lay traité comme suñu opposant wala suñu adversaire politique lañ lay jàppee foo taxaw wax dinañ taxaw xeex la ba ñu wane ni yow ñun ñi kii la loolu la ñu wax ni tey déclaré nañ ger boobu nii suñu diggante ak moom xeex boobu moo fi am parce que ñun jàppe wuñ ko militant APR koo xam ne nag dañuy taxaw li ñuy wax président nag bis bu si bàyyiwul xel buñ demee ba sa kanam dina ko gis parce que ki ñuy wax yaakaar naa ni moom moom mënu ko gën a xam si dëgër bopp ak naqaree waxal ak si yëpp waaw loolu nag dañu bëgg ñu tenir si compte ñun nag duñ ko bàyyi militant responsable bu nekk Thiès dégg ngeen bisam ak moom mu histoire ak moom responsable yi fi nekk yëpp tey nag ñan ñoo ko desee ñi fi nekk ñëpp li ko dage si Augustin Tine ba si Siré Dia moo si mujj li si li si li si des nag mooy fi ko mu mujjee nag mooy ay collaborateur am yi sësoon si moom daan ànd ak moom jàppale ko bi muy lëndëm ak bi muy metti lépp loolu léegi li ko dese mooy wëlbatiku di xeex ak ñoomu si kii bi kon kooku dañuy comme man mi ak Madabo gis nga si ñeneen ñu si teew fii boo gisee parti bi APR cees ñu si Thierno Alassane Sall doon àndal ku mel ne Awa Doucouré gisatu leen ko si terrain bi ku mel ne Marème Diop Sylla mii moom la doon àndal gisatu leen ko man mii ku ne xam na ni ba président ba ñoo àndoon ba ñu àndee dem si président de la république président ni dama bëgg nga jàppale ñu Thiès ñu ànd ak moom depuis 2009 ba léegi musuñu ko bàyyi mais boobaak léegi dama leen di wax ni si fitna ak coono lañ nekk ak di ko jéem a jubbanti teg si yoon bu baax mais bis bi demee ba xam ne nag kii dafa dëgër bopp yoonam bi mu jël nii la ko kiyee kiyal dañu jël ne jël suñu matukaay nag ñun dañuy dakkal suñu ànd ak moom taxaw nag alerte président wax ko ne bu jëlul matukaayam si Thiès kii dañuy matuwaay yi nu soxla mooy président na ko fi jëlee ñun ki ñu soxla mooy un fédérateur kilifa boo xamee ne mën na dajale nit ñi am na capacité d'écoute loolu kooku lañ soxla non mënuñu taxaw parce que nekkuñu fi di def promotion kenn liñ fi ne indi mooy fexe ba parti bi dox voilà loolu manqué wul si APR kon président na seet ku mel noonu mu teg ko si Thiès nit ñëpp ànd ak moom liggéey koo xamante ni mën nga déglu nit ñi mais soxlawuñu koo xam ne kilifa boo xamante ni tey yaa ngi xulóokee suba yaa ngi histoire ak gis ngeen la preuve li passé am fii barki dem ay xale ñëw toog di def seen conférence de presse di wax ay yeneen xale jóge fa la ñëw songu leen ay xaleem kon loolu loolu day wane ni kii nit fitna la tey bi ñuy def suñu conférence de ñun dañ si jël suñuy matukaay parce que xam nañ ñoo ils sont violents mën nanoo jug fële yebal yeneen xale ñu ñëw song ñu comme ni ñu defoon keroog aussi loolu tamit dañuy wax aussi tamit na ci président jël ay responsabilités parce que parti bi mënul nekk nag chaque jour bu ñu déggee APR ci xuloo ak xeex lañ koy dégg loolu dafa ñaaw ñëpp ñu ngi ci gaañ ñun si benn adversaire lañ waroon am muy Idrissa Seck léegi au lieu que ñu am Idrissa Seck comme adversaire léegi parti bi si boppam moo am adversaire am boo xam ne mi ngi si biir APR ñu war a kii loolu kon loolu la ñuy wax président nañu fexe ba at loolu mu jëlee ko fi biir parti bi mën a amaat bu ko fi jëlewul nag alerte bu ñuy def mooy risque ay démission am si parti bi ay militants yu mag dinañ bàyyi te bu dinañ bàyyi pour jéem te la fois kon nga gis ay responsable yu jóge si parti pouvoir di dem si opposition dina am bu fekkee président jëlul ay matukaayam fii nii loolu alerte boobu la ñuy wax wax ak moom ni ko na jël ay matukaayam sinon loolu dina ko dégg si ay fan yu néew voilà wala mu dégg si yeneen problème wala yeneen histoire si biir Thiès loolu nag balay am ñun wallu APR li ñuy war a bëgg a taxaw mooy wax ko mooy comme wuyoo suñu tur mooy na président jug gaaw ñu wàllu APR cees bala muy suux loolu daal la ñu am. yéen ñi fi toog nii bu ñu ko joxoon président bi leen di seetaan ko kan ngeen yaakaar non président ñun loolu dafa am loo xam ne duñu taxaw fii di ko wax ci mbooloo mais bis bu ñu toogeek moom. lu tax seen cër kon aussi ngeen toog ne ab ministre de la république responsable wa wax parce que yàq gi yàq gi dafa fës. wala madame mu jiite dama ni yàq bu fesee kiy yàq kooku dañ koo war a fesal ba ñëpp xam ne kii dafay yàq. looloo tax mais nag comme parti boo ci nekkee. du question li ngay proposé naan président defal diw defal diw kooku bis bu ñu woowoon ñu toog wax ak moom dinañ ko wax personne bi Thiès soxla ak ki gën si cees parce que fii tamit dañu tàmm di wax leen ku fi wax ñu ni diw a nekk sa ginnaaw fi ne ku ma fi waxoon ñun kenn ku nekk suñu ginnaaw mooy fexe wàllu parti bi fii si Thiès looloo tax mënuñu fee tudd turu kenn koo fi tudd turam mu ni moo nekk si ginnaaw ñuy wax kenn nekkul suñu ginnaaw li nekk suñu ginnaaw mooy fexe bëgg parti bi jub bëgg parti bi dem bëgg parti bi avancé. mais yéen président Macky Sall yëg na problème yooyu euh, Ndiaga 2014 fii la ñëw ne nekk leen benn bu ngeen gagné bi mu demee am na dëgg si yéen. Mhm. ngeen dem référendum nekk benn xelam dal ngeen dem gagné. ngeen dem mhm. au conseil euh, collectivité territorial ngeen nekk benn ñu gis Siré Dia Thierno Sall. Euh, Augustin Tine ñoom Abdou Mbow ñëpp ànd ngeen dem gañam 499 voix mhm. ngeen tey ñëwaat toog di génnewaat yeneen problème est-ce que amu leen woon yeneen yoon mhm. pour wax problème yooyu président xam nga est-ce que yéen ngeen day ñëw pour régler problème mu APR Thiès est-ce information boobu waaw xam nga problème parti bi Thiès au bi mujj bu ñu départandoon si commune Thiès kon dunu ñu gagné boo xoolee li tax ñu gagné élection au conseil bi si département bi moo tax ñu gagné département bi ñaata collectivité locale moo fi nekk y a douze collectivités locales moo nekk si département bi onze yëpp ànd nañu ak APR tey benn collectivité locale moo fi des muy bu Jandeer kan moo ko jiite xaritu Thierno Alassane Sall muy Alassane Ndoye ba tey moo ñëwagul si jàppale président de la république kon loolu rek junjure rek si li ñu doon wax ni ba tey moom presque dafa mel ni liggéeyul parti bi kon nag li ñu bëgg mooy président na jël ay dégg naa nag du àtte xuloo wala xeex si biir parti mais Thiès fii bu fi jëlul ay responsabilités am yaakaar naa liñ fi amoon tuuti fekk na dëkk bi ñëpp mere Idrissa Seck ñu bari di ko bàyyi ñun ñu waroon a am nit koo xamante ni ku ku am ouverture la mën a accueillir militant yooyu mais tey suñu mbokk yi jóge woon réew mi ak ñu jóge woon PDS ñëpp découragé nañu. ñu si bari bu ñu amul ku leen téye nag risque ñooñu ñu dem yóbbaale sax ak ñi nekkoon APR benn yoon kon nag alerte boobu la ñuy def si président de la république mu jël si ay matukaayam balaa lool di xew quoi. non non loolu man amaguma si benn information. waaw loolu fu nu mën a jaar tamit jaar nañ yeneen yoon pour mu àgg fa. waaw xam nga saafara dafa mel ni dañuy wax ni tawet yenn saay bu siwul peut-être bi day xaw a des mais nag il faut que ñu wan ko ni ko góom bi fii la tool ndax mu jël si ay matukaayam pour faj ko loolu nag yaakaar nañ ko si moom te yaakaar nañu mu tax am taxawaay boobu parce que ñun ku ñu xam parti benn parti